Euh, Cheikh Ahmad Tidiane Niass di xalif général bu Medina Baye ñàkk nañ ko waaye bi ñu ko ñàkkee ñàkk nañu xam-xam ñàkk nañu sellal ñàkk nañu tabe ñàkk nañu nit koo xam ne boo ko doon tënk ci benn baat da ngay naan ku baax la woon waaye baat boobu nga xam ne ku baax la woon nag moo feeñal ci moom ay jëfin yu bare bare yoo xam ne bi ñu annoncé décembre ba léegi ni ñaa ngi koy seede waaye lépp boo ko résumé mooy ne rek nit ku baax la woon nit la woon koo xam ne produit wu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass la ci école am la génnee ci yaram la génnee ci tarqiyaam la génnee ndax daf ko tànnal sax ba tànnal ko fi nga xam ne foofu lay jànge sàkk ko fa xam-xam ndax mag ñi xam-xamu kese kese taxu leen woon jóg waaye dañu bëgg xam-xam boo xam ne dafay ànd ak éducation dafay ànd ak éthique dafay ànd ak wàllu ruux bi itam ñu yar ko moo taxoon mu yónnee ko fële ca Nigéria mu jàngee ci Cheikh al Bërdi taataanee fa xam-xam loolu moo tax nag moo ko façonné ba mu nekk ki mu nekk tey ba Sénégalais yëpp di ko jooy bi mu génnee àdduna. ñu ngi woy encore Pape Cheikh tur boobu encore lan mën a wax. waaw foofu dafa niroo ba niroo fa ak Baye Niass sax naan Pape Cheikh dafa niroo foofu ak ba niroo fa ak Baye Niass ndax Baye Niass nekkul ne carte d'identité moo ci Baye Niass moo ci nekkoon waaye.

ci encore wàllu encore diggante encore ak euh, ñenn encore ci kër euh, lu mën encore seere ci waaw euh, digganteem ak kër diine yi amul woon diggante. Hmm. yëpp benn kër gi la woon. loolu itam continuité la boo xam ne tàmbaliwul ci moom. parce que boo seetee Madinatu Touba digganteem ak ñaseen boobu depuis ca jamonoy maam yi El Hadj Abdoulaye ak maam borom Touba ca tafsirul Jala Jalalayn bi nga xam ne maam borom Touba joxoon na ko ko.